nataal fukk ak juróom noonu yeesu yi génne nañ ko dëkku yerusalem foofu ay soldaar daaj nañu yéesu ci bant ci bant yoobu yéesu am na metit yu doy waar ni mu nekkee yàlla mënoon na wàcc ci bant boobu waaye defu ko ndax bu ko defoon du mën a doon suñu musalkat ci yoonu yàlla foog mu doon nit ku amul benn taq-taq te sellu lool dee ngir bàkkaarkat yépp te loolu doomu yàlla gi rekk moo ko mënoon a def ci loolu yéesu des ci bant bi mu dee fi ñu waroon dee pour ñépp bi muy dee ci bant bi yéesu doon na mbotem yàlla bi ñuy saraxe ngir ñun jaarale ko ci deretam bu sell bi mu tuur ci loolu suñuy tooñ mën a set ci suñu yaram te ñu am mbaalum bàkkaar saraxu yeesu bi sarax bu mat la te yàlla baay bi nangu na ko bi yéesu dee ci bant bi nit ñi soxlaatuñu rey benn mala ndax seen baalum bàkkaar yéesu joxe na dundam te tuur deretam benn yoon ba faw dara desatul ndax ñu def ko lu ñu war mooy gëm ko te nangu sarax bi mu def ci bant bi ndax man ndax yow ndax ñépp nataal bi mu dee yéesu denc nañ ko ci bàmmeel bu ñu dencagul kenn bu ñu yattee ci doj benn nit bërëng doj bu rëy ci bunt bi ndax ñu mën koo denc bu baax noonu yeesu yi teg fu ay xarekat ci bunt bi ndax ñu koy wottu ndaxte dañoo ragaloon ay xaritam ñëw jël yaram yi yóbbu ba noppi yégle ne yéesoo ngi dund génn ci bàmmeel bi yéesu waxoon na bu leer ay xaritam ne leen bu dee ñetti fan rekk lay def ci bàmmeel bi ba noppi dina dundaat ndaxte mooy yàlla mooy yàlla biy dund waaye xaritu yéesu yi àndoon nañu tiis bu rëy rëy bi mu deeyee ndaxte fàtte woon nañu kàddu yum leen waxoon lépp ñetti fan bi Yeesu dee ñenn ci jigéen ña ko doon topp xëy nañu dem ca bàmmeel ba te doj bu rëy boobu dindi woon nañ ko ci bunt bi xarekat yu doon watt bunt ba fees ak tiit ndaxte bàmmeel ba kenn nekkatu ca ndax yéesu dekki na ci loolu yëngu-yëngub ragal am ndaxte bàmmeel ba kenn nekkatu ca benn malaaka feeñu jigéen ña ne leen bu leen am lu ngeen di ragal xam naa ne yéesu ngeen di seet mi ñu daajoon ci bant bi moom nekkatu fi moom mu ngi dund nu mu leen ko waxe woon jigéen ña daw di dem te ñu fees ak mbég dem nettali lépp li ñu gisoon te dégg ko ay xaritu yéesu nataal ñaar mu dee ba dekki yéesu nekk na ñeent fukki fan ci kaw suuf nit ñu bari gis nañ ko te wax nañook moom ndax liggéey yéesu muy doomu yàlla jeexoon na ci kaw suuf moom noppi woon na dellu ca baay ba ca kaw asamaan ci loolu yéesu ànd ak ay xaritam ci benn tund muy wax ak ñoom mu ne leen damay dellu ci yàlla baay bi waaye dinaa leen yónni xel mu sell mi tax ngeen mën a déggal samay kàddu ci loolu yépp ay xaritam ak ñépp ñi nar a doon ay xaritam dinañ ko mën a topp yéesu ne leen tamit ay xaritam war nañu ko seedeel bi mu waxee loolu lépp ay xaritam yéesu yëkkati ay loxoom ca kaw te leen ba noppi yéege asamaan ay xaritam di ko séen di ko séen ba gisatuñ ko ci loolu ñaar ñi yàlla yónni di ay malaaka wàcc seen biir ne leen lu tax ngeen taxaw di xool asamaan si ndax yéesu bi ñu dindi ci seen biir yéege ko asamaan noonu lay delsee tey jii yeesu mu ngi asamaan waaye benn bés dina delsi te jël ñépp ñu doon ay xaritam ndaxte yeesu daa bëgg ay xaritam dëkk ak moom fi mu nekk nataal ñaar ak ñaar bi Yeesu nekkee ci kaw suuf wax na ci ñaari yoon yoon bu yaatu bi ak bu xat bi ndaxte ñun ñépp ci yoon bu yaatu bi lañu juddoo yoon bu yaatu la te terewul dara te ci biir yoon boobu am nañ ci ay moroom yu bare ndaxte yoon boobu dinañ ci am ay nawle ay xarit lépp a ngi ci biir te lu bon rekk a ci nekk ndaxte terewul dara dara aayewuñ la ko ci yoonu seytaane ndax xam nga ko seytaane mooy noonu yàlla doon na tamit sa noon yaa ngi defal seytaane bànneex saa boo defee lu bon te lu ñaaw loolu ngay def lu neexul yàlla la yoon bu yaatu boobu du yoon bu baax bu ñu wara topp te safara la lay jëme te ñépp ñuy dox ci yoon bu yaatu boobu ba ci seen dee safara lañu jëm te doo delsiwaat safara te foofooy dëkkuwaay ñi ñuy mbugal ba faw te yàlla du nemmeeku mukk bërëb boobu ñépp ñi fay féete dañuy xaajalikook yàlla ba faw ndax nga dox nag ci beneen yoon bu baax bi mooy bu xat bi fokk nga jaar fi bantu yeesu bi nekk mënoo faa jaar di wéy te jaaroo ci yéesu bu fekkee yaa ngi def lu ñaaw yow doo mën a bokk ci ñuy dox ci yoon woowu bala nga mën a bokk ci ñuy dox ci yoon woowu fokk nga baalu say bàkkaar borom bi yeesu ba noppi nga gërëm ko te sant ko ci li mu dee ci bant bi ngir yow xëj na sax bu loolu weesoo sa xarit yépp dinañ la bàyyi waaye doonoo kenn rekk ndax yéesu mu ngeeg yow dina la aar te dina la gide bu yóbbu la ci kër yàlla te foofu dinga fa amee mbég ba fow